mbokk yi di rafetlu bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ak seen kon na ci xibaaru digg bëccëg gi la ca gën a fës tiis fa dal kon na ca bétanti di lu miti fukki nit ak juróom-ñeent ñëpp yi soxna ñàkk seen bakkan lu ëpp fanweer jëlee ci ay gaañu gaañu loole nag gannaaw ba seen gaal euh, suuxee ñu den wuti kon ay paañ ak euh, lu ni mel foofee nag bokk na ci li nga xamante ni xëy na euh, gàllankoor na yëf yi benn infirmier cotte moo fa nekk secours ñu jàppit ni a jekk si euh, loolee kon danañu ko càmbar waxtaanee ko ci digg bëccëg bi waaye li mu war a mën a jur socialement ak ci wàllu ko koom ca boobee il kon am nañu ci gan Sékou Sarr moom ma nga cosaanoo ca Bettenty moom la fas yéene waxtaanal ci xibaaru digg bëccëg bi monsieur Sarr maa lay nuyu. dinañ euh, kon namal waxtaan wi euh, léegi dañ koy tënk ci wenn xët laata ñoo dellu kon ca Touba gannaaw euh, yaatal ci wàllu xibaar yi ak cérémonie officielle Kazu Rajab bi kon mbokk yi ni stut ñu yaatal xibaar yi. mbokk yi di rafetlu wand bi ak euh, télévision Futur Média wax nañ leen ko tiis dal ci kaw askanuk euh, Bettenty foofee nag benn euh, infirmier moo fa nekkoon jamono jooju secours yi yéex nañoo ñëw jamono ju fukki jigéen ak juróom-ñeent ñàkkee seen bakkan lépp fanweer jëlee ay gaañu gaañu gaal lañu duggoon kon doon wuti ay paañ lu ni mel gaal googe nag moo këpp wàllu ya kon am jafe-jafe Amadou Bamba Sonko ko euh, kenn la kon ci askan wa euh, foofe euh, moom teewe na kon yëf yi ñoom ñoo ca doon jàpp ngir wàllu sax ñi nga xamante ni ñu nga woon ci ay tolof tolof ñu teewlu kon kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko. Ahmadou Bamba. waa ñu ngi lay nuyu. waa di la fay euh, soxna si. Euh, Ahmadou liñ euh, ko waxee lu mitti foofee dal ci askan wa fukki jigéen ak juróom-ñeent lan moo xew carrément yéen ñi nga xamante ni yéen a teewoon ci bërëb yi directement. waaw ci dernier ci décompte yu mujj yi ñu ngi vingt et une personnes ñaar fukk ak benn doomu aadama yu faatu ci géej gi. accident la bi nga xamante ne dafa xewoon booru dix huit heures fii ci Betenti maanaam Betenti dafa am benn île bi nekk nekk ci kanamam moo dox diggantam ak géej bu mag bi mm-hmm. ci ginnaaw il boobu la jigéen ñi euh, fees dell ci gaal gi euh, ñu doon dem uti euh, li ñuy wax paañ Euh, ci biir loolu la ngelaw bi ñu paree liggéey bi ñu yëw gaal gi damu fees del euh, benn ngelaw dal di jóg euh, gel gaal gi nag maanaam ñu waxante dëgg dafa mel ni mhm. dafa am surcharge surcharge boobu nag moo waral ak gaal géej gi yëngu tuuti moo tax mu gaal gi dal di suux ci saa si ay secours ñëw parce que dafa fekkoon ay gaal yu nekk ci wet boobu ci ci seen wet mhm. waaye laata ñuy àgg ah, ñu bari faatu nañu ñenn ñi ñu secours leen ñu indi leen ci dispensaire bi eh, ñu assister leen eh, waaye teewul ba tey daal ah, ñu fa faatu ba décompte bi ba nii nii nii nii la néew bu mujj bi eh, joge si géej gi maanaam suñu ko xaymaa ci vingt une personnes moo gaañu yi ñu secourir toll na ba cinquante deux personnes soxna si. yi ambiance bi mën nañ xalaat ni foofu ñu ngi dund lu metti ndax ñoom ñëpp ñoo bokk gox bokk kon njaboot gi bokk bokk metit wi waaw waaw waaw fii ñëpp a bokk benn dëkk bi la mhm. euh, fi mu nekk nii euh, autorité yaa ngi ñëw euh, dëkk bi fees na del dëkk yu yi war bëtanti tamit ñu ngi nii ñëw nañu wax dëgg yàlla lu tiis la lu tiis la metti na lool metti na lool fa daanaka def nañu enterrement yi sax daanaka def nañu enterrement yi ñi nga xamante ne dañ leen doon sécurité deewuñu ñoom la ñuy jéem a faj nii foofu ci dispensaire bi Amadou Bamba rapidement rek ci secours yi ñu ni yéex na wàllu gi xëy na spécialiste neewul woon euh, boor yooyee pour ñu mën ci jàpp. waaw secours yeexoon na ndax ñi doon secours duñu ay spécialiste waaye maanaam dafa tombé sax li tax mu yem nii dafa tombé euh, ak euh, benn école la école bilingue ñoo fi ñëwoon alors ñu détaché leneen benn compagnie secouriste yi. Euh, ñoo fi nekkoon ñoo daan dem ci île aux oiseaux den gunge élèves yi nga xamante ne dañu jógee dakaar ñoom bi ñuy romb accident bi dañuy romb accident bi rek euh, euh, ñu dal di jël ay quelques éléments ñu ñëw bokk ci ñi nga xamante ne fii la ñu dekk te ñuy secourir nit ñi loolu tamit il faut que ñu rafetlu ko parce que ay support la yi nga xamante ne nekkuñu fii fii amul base waaye dañ doon gunge ay élèves yi nga xamante ne dañu jógee ci école bilingue fale ca Dakar ñoom ñoo doon dem ci île aux oiseaux di dem ñi bi ñu gisee accident bi la la ñu la ñu la la la ñu bokk ci secouriste yi ñu gërëm la bu baax Amadou Bamba kon Sonko euh, di euh, bokk kon foofee moom it euh, ca bétanti jamono jooju ji am bokk na ca ñi xamante ni ñoom ñoo doon jéem a wàllu ñooñee kon mu di loo xamante ni lu miti la Ibrahima ñu amu ci gan ñu leen ko waxee kon ci ndorteelu xibaar yi moom it ma nga cosaanoo foofu monsieur Sarr ma dellu nuyu la. kon dal na tey ji ci sa dëkk ndax yaa nga cosaanoo it foofee ca bétanti lu ni mel gulit la fa. voilà. Ah, xanaa sant yàlla rek julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ñu xamoon ne tiis la daal moo ñu dal si dëkk ba te du la première fois aussi tiis bu mel ni mu dal ñu. Mm-hmm. xëy naa nombre bi daal ci la gën a ëpp. ñaar fukki nit ak euh, benn jamono yi parce am na année yoo xam ne mais 94 sax am na yu mel noonu mais 14 personnes ñoo fa faatu. mais bu mel ni daal luy dem bi tolloo vingt une personne c' la première fois bi ma bi ma xamee Bettenty bi léegi daal. surcharge bi waaye it ngelaw loo xamante ni euh, bokk na kon ñaari éléments yooyu suñ leen boolee lu jur euh, jéey ju mel nii. waaw parce que d' après li ñu wax daal 54 personnes moo nekk si gaal bi source bi si chef de village bi laa ko jëlee Tidiane ci la ngelaw bi tout donc ñëw ci ngelaw bi ñëw ne yëkkati gaal bi nag yaar bi ci ki gaal bi dem mhm. bi mu demee nag la ki la dix-sept personnes yi fukki nit ak juróom-ñaar ñoo fay faatu léegi mu am trois euh, <coughs> trois disparus alors bi ñu demee ba ñu def ay recherche nag si booru midi et demi ngay boobu vingt vingt la la laaj jot a gën te humilier leen mhm. mu des kenn kenn kooku nag ñu ngi continuer di leen di di ko wut. Mhm. ah jamono boobu daal ba midi et demi quoi chef de village moom ma joxe information yi. jamono yi kon ëpp na fanweeri nit yu ci am ay gaañu gaañu dinaa desiwaat ak ci yow Sekou saar ah, ñaar fukki nit ak benn kon officiellement waxtu wi ñoom ñoo ca ñàkk seen bakkan ca suuxu gaal googu Aminata Goudia bi maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Ngoné Ngom. boobaak léegi yaa ngi topp tiis wii kilifa yu bari kon euh, ñu nga wutali ñoom it euh, bétant yi ndax loolee euh, dal ci seen kaw fan nga toll ci wàllu information. waa ni nga ko waxee noonu la fi mu ne nii nangu ne ñi ngi toll ci Toubacouta war a demaat Missirah ngir rek mën a jéggi gaal pour dugg Bettenty foofa nga xam ni fa la jéggi jooju amee mhm. ñi nga xam ne moom mooy gouverneur bu Fatick nga xam ni moom moo yore wàllu napp gi di Oumar Gueye fi mu ni nag délégation bi ci Toubacouta lañ tolloogum waaye ko waxee ko mën a waxee rek naqar bu metti la ndaxte nag ñi nga xam ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan lim bi yokku na ndaxte fi mu ne nii ci ñaar fukk la démb ba mbir mi soog am nag fukk juróom ñaar la woon ca gannaaw la benn jigéen ji wan loor nga xam ni ci rescapé yi la bokkoon ñu doon ko yóbbu ci centre de santé bu Sokone moom itam ñàkk bakkanam mhm. ñett ñi nga xam ne ñoom la ñoo porté woon disparu te ñu ah, nga xam ne ñuy tudd Moussa Ba nee na ah, ñu bëri dellu nañu seen kër ndax seen gaañu gaañu taxul woon mu demee noonu waaye nag ba léegi ci centre de santé bu Sokone itam keneen ka nga xam ne moom moo wannu loram wannu lor ta nekk ko moom it ba léegi ñu ngi fa ñu koy fàcc waaye ngoonee fi ne nii nag ñu bëri ñu ngi wax ci li nga xam ne moom moo indi jëye jooju version yi bëri na trop waaye ñoo xam ne buñ sukkandikoo ci ay témoins mhm. jàpp ne loolu la rek mbirum surcharge la que 72 personnes la ñu wax ne ñoom ñoo nekkoon gi ba loolu fekk leen ci fi mu ne nii euh, ngi waajal euh, duggaat ngir rek dem Missira ngir rek présenter li nga xam ne moom moo di ay euh, njaale nguur gi ak itam masawu askanu bétanti ba nga xam ne pisu ci seen kaw la dal ci seen kaw la dal ngoone Aminata Goudiaby kon tubaa Toubacouta di ñu toppal noo ne kon euh, xibaar yi euh, mangook kon euh, Sékou Sarr fàttali ko mooy suñu gan moom ma nga cosaanoo ca bétanti Sékou gis nga xayma yi ci wàllu chiffre surcharge bi ñu ngi naan 54 ñi naan ëpp na kon 70 ñoom noonu lañ ko daan faral di doxalee jigéen ñi wala ku ci nekk danga daan dem par groupe yu ndaw wala généralement ci ci lim yu am solo lañ daan liggéeyee noonu. xam nga bu jëkk bi ba ba léegi léegi léegi day am ay ñaar ñett ñeenti ju bokk gaal gaal bu yem bu gaal bu mag mais jamono bi lañ commencé encore léegi léegi mu am ay ñu bokk benn gaal bu mag gaal bu mag bi ñu yóbbu leen pour ñu utu yoxos bu ñu demee ba nga xamoon ne napp nañ ba pare ñu dellu siwaat nag dem si dëkk ba mais bii yoon d'après li ñu doon wax ñu ne bi ñu ñëwee bi ñu paree bi ñu ñibbi si nag ki léegi bi nag fekkee gaal bi diis na ngelaw bi encore si ñëw. bi ngelaw bi ñëw nag ci la gaal bi dem. Mhm. waaw parce que bu njëkk bon léegi eh, am na ay bouées de sauvetage certainement mais nag man euh, wóoruma nombre bi est-ce que c'est égal si eh, eh, passagers yi nekk si biir. parce que bu njëkk temps yu njëkk yi ñun si si jumaana dafa am ay ay bant bambou moom moom boobu bouée de sauvetage kii amul woon bant bambou boobu moom dafa dafay woyof. mais est-ce que ndox yi dinay faral ñu fay nemmeeku wax nga ko sànq à part 94 ci lim bu ñu ciy gaañu euh, parce que euh, boo nee il il wax ñoo xamante ni miin nañu ndox euh, yàgg nañu évoluer ci ci ci ndox mi xëy na lim bu am solo nii buñ ci ñàkkee seen bakkan dafay doy waar au-delà condition conditions climatiques. waaw mais ba léegi ba jam ba jamono bu njëkk si am na jigéen yoo xam ne dañuy dañu dañu fee comme góor yi. Mm-hmm. bon ñoom presque ragaluñu géej parce que ni ki lañ juddoo ki lañ magee. te boobu seen profession bi yëpp si kii foofu lañ ko exercer pour euh, am si li ñu li ñu dundee ce qui veut dire donc ñoom demoon nañ à un certain moment donné même pour dem euh, jëy sax du dara si ñoom. Mhm. c'est comme par exemple yéen ñi nga xamante ne dañu nekk si kaw dugg si oto bi du dara si loolu loolu la mel si ñun aussi. nangoo ko noonu la mel bi yoon nag euh, mu daal di euh, xaw a mit ci loolu euh, wax nañ ko ñaar benn jamono ji ñàkk ci seen bakkan bari lim boo xamante ni jëlee nañu ci ay gaañu gaañu taxaw gi jamono ji nan la tëddee Ibrahima Jame maa ngi lay maa ngi lay fay Ibrahima blessé kon bu weesoo ñi nga xamante ni ñoo ñu leen doon jëbbal seen boroom ñañuy ñuy taxawu ngir jéem a muccal seen bakkan ndax jot nga yër seen état fan lañu ñu jërëjëf kon Ngoné euh, ni nga ko waxee kon euh, noonu la ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy euh, district sanitaire bu Sokone fii nag euh, ñetti blessé rek lañ fi andi woon parce que bu ñu laajee médecin bi def ñëw ne rek am na benn poste de santé bu nga xam ne am na foofulee pétenti bi fi nga xam ne fala jëye ji xewee jëye ji bi xewee kon euh, fii euh, nga xam ne mooy sookoon ñaari femme enceinte ñaari jigéen yoo xamante ne nag dañoo wonoon ay lor ñoom lañ fi évacué woon kenn ki sax nee nañ dafa gaañu ci yoon bi laa mu yegg si mm-hmm. keneen ki nag jël nañ ko en charge ni mu waree euh, keneen ku góor la euh, moom tamit moo nekkoon ki nga xam ne moom moo nekkoon kon capitaine gaal bi moom tamit euh, ñu ngi koy faj ni mu waree ba yaakaar nañ ne sax fi lekk ngoon mën na am mën na am tan ba ñu bàyyi ko mu ñibbi waaye nag li ñu gën a intéressé wu fii Ngoné Ngom moo di ne mhm. district sanitaire la boo xamante ne euh, certainement euh, euh, kii bi si boppam médecin chef bi nee na am nañ ay matériel yu yu yu war mais li ci seetlu mooy ay genre abri provisoire ñoo fi nekk mhm. biñ fi ñëwee liñ njëkk gis mooy genre abri provisoire pour mu xam ne ndax sax di district la peut-être il fallait que nga xoolaat bu baax dugg bu baax waaye nag nee nañ am nañ yaakaar ndax ñoo ngi construire beneen centre de santé boo xam ne jéer yu mel ni bu fi amee rek mën nañ ko mën nañ andi wàllu bu gaaw gaaw donc euh, mu mel ni kon ngoone euh, situation bi euh, médecin yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk district sanitaire bi taxaw nañ ci bu baax a baax ndax bi affaire bi amee ñi nga xamante ne mënuñu woon mënuñu woon kon jël en mënuñu leen jël en charge foofu nga xam ne moom mooy Bettenty ñoom la ñu andi fii am nañ yaakaar bu baax a baax ne kon mhm. fi lekk ay waxtu yu new ñi ñu jël fii en charge danañ leen bàyyi ñu ñibbi suñu dëkk waaye liñ ci mën a yokk ngoone mooy nañ mu ngi wutali foofu Bettenty euh, ñu ngi woon Fatick sànq rek euh, pour dem wutali Bettenty li nga xam ne fala la ji amee pour masawu njabootu ñooñu le loolu le si euh, accident boobu la li ñu jàpp nag comme information li waral accident bi parce que version yi nee nañ dafa bëri kenn ñenn yi nee nañ gaal bi dafa dafa dafa bëri woon lool parce que mm. lu mot ëpp kon euh, juróom fukki nit nekkoon nañ ci euh, gaal bi euh, ak marchandise xam nga seen produit halieutique yooyu mhm. day diis looloo tax gaal bi xaw a suux ndax toujours mais mais nag toujours est-il que danañ jéem a xoolaat pour xam rek lan moo waral jëye jooju exactement ngoone ngom Ibrahima Diame ñu lay gërëm kon daal di dinañu ci dellusiwaat ni nga ko waxee jorin ji ñu dénk wàllug napp gi ma nga te wutali Aminata Goudiaby sànq mi ngi confirmer information boobu secrétaire général gouvernement di it responsable politique ca Sokone moom nag mi ngi bokk ak ñoom naqar wi di fàttali ni gouvernement bi def na ay jéego nee na ngir jàppale kon yooyee jigéen ci micro Fatou Kiné Deme la waxee. na ci dellusiwaat kon na ca kàddoom euh, yooyee euh, Sékou Sarr euh, dégg nga ko kon gaal géeg ni mu demee produit yi ci biir moom moo nekkoon seen principale activité foofu jigéen ñi di ci yëngu di regroupé waa GIE pour gën ci am loo xamante ni dinañu ko ci jëlee ba yóbbu ko ci njaboot gi muy kon coût boo xamante ni dinañu ko ressentir socialement waaye tamit économiquement. ah kay moom économiquement comme socialement dinañ ko sentir te dinañ ko yàgg sentir. Mm-hmm. parce que perte bu mel nii bu dalee ti si dal dëkk bi ah, ñun ñëpp ñoo ko bokk ak euh, village environnant yi nga xam ne del si ñoo mbaato mhm. ak autorité locale yi sans compter aussi autorité administrative yi ce qui veut dire lu métti la te duñ ko gaaw a fàtte mhm. mais ci conditions yi nga xamante ni daan nañ ci euh, liggéeyee ñu ngi doon wax yenn effort yi ci gouvernement bi def mais xam nañ ni souvent coono la na ñuy euh, sóoboo noonu nuur ci géej géeg yooyu euh, ci ay soxna nekk na loo xamante ni jafe na ci ñoom conditions yi yàgg nañ ko wax xëy na bu gënoon buñ ci gënoon taxaw doon na gën tamit. waaw conditions yi jafe na mais quand même amoon na ay amélioration parce que boo seetee bu njëkk bi ni doon ni ñu doon napp ak léegi. Euh, nuroowuñu encore aussi li ñuy mun a am si njëriñu gi léegi mënu bu njëkk bi li ñu am si léegi mënuñu ko am bu njëkk bi. Mhm. ce qui veut dire que am na loo xam ne bu. liggéey organisation organisation dama am ay GIE. Mhm. am na ñoo xam ne day am GIE bu ñu kiiyee ba pare am na ñu ko ñu koy jëndee ñu dem di ko placer am na ñoo xam ne ñoom aussi dañu am si affaire yooyu lay nekk quoi baana baana yi di dem di jënd di jaayaat. Mhm. ce qui veut dire am na rentabilité moom. ma ngoog mm-hmm. euh, bettanti euh, di kon jooy jamono ji yaa euh, Sénégal gi yëpp ànd ci ñaar fukki nit ak juróom-benn ñëpp di soxna ñàkk seen bakkan lim bu am solo it ci ñoo xamante ni jëlee nañu ci ay gaañu gaañu mu mel ni jëy dal ci kaw Sénégal tàng yi kon bari na Ibrahima Kane moo ci dellu si ci pàttali yi. askan kon danañu ko kon àndaat ak moom euh, mangoog kon ni ñu ko euh, waxee jamono ji kon gannaaw suñ borom dogal na li muy dogal euh, tiis wi naka nga yaakaare ne xëy na kilifa yi bu dee ñu ñuy dégg noonu la ñu war a mën a jàppale tey gox boobu ba xëy na niñ ko war a ressentir du ñàkk nañ ko yëg mais xëy na njaboot gi dinañ xaw a am lu ñu leen defalee tuuti. waaw dinañ am lu ñu si ressentir mais xanaa lu ñu leen laaj rek ñu gën a renforcer sécurité yi. parce que bu mel ni par exemple bu de sauvetage yi boo amee même bu amul nombre bi toll nii pour mu am kenn ku nekk mooy individuellement nga am sa sa buye dana xaw a jafe. Mhm. mais bu amee yu bari yu xam ne dana xam naa ne bilan bi du toll nii ko xëy naa dina dina gën a tuuti. Mhm. te encore aussi ñi nga xamoon ne ñoo am gaal yi aussi di fagaru nga xamoon ne ngelaw moo amul heure. da nga dugg si biir gaal bi. mu jëkk jëkk condition condition climatique bi. te bu ñu fa nekkee aussi dañu war a topp météo di seeti temps bi nga xamoon ne moo war a nekk. comme à chaque fois léegi ñoom aussi commencé nañu di di déglu bu météo nee na bon mauvais temps la ñu bari du ñu dem géej. Mm. dañu toog ba kii géej bi calme ñu soog a demaat. mais ñun euh, ñu dund daal moo mel noonu daal nous sommes des insulaires il faut ñu lay ñu lay gërëm bu baax kon euh, seko euh, saar nekk kon fële ca Bettenty kon foofee la cosaano di la jaajëfal di la mastaw it ci loole nga xamante ni rek askan wi dund nañ ko kon ci méttit ñaar fukki jigéen ak juróom-benn yu ñàkk seen bakkan waaye tëlim bu am solo ci ñoo xamante ni jëlee nañu ca kon ay gaañu gaañu mbokk kon ci wàllu ko xibaa wax nañ leen ko ca ndorteel la kaso Rajab bi tam cérémonie euh, officielle bi kon euh, dañu koy daal di euh, wutali foofee ak Touba fekk ji leen fa laata loolu fàttali leen rek genn ko lakk gu am ca booru Nioro Chérif kon fële la ca département bu Vélingara foofe it am na lu am solo ci ay yàqu-yàqu lu ëpp fukki nekk ak jur ga it waaye dundu foofe it ñàkk nañu ca lu am solo bañ ko estimé daal nee nañ def na kon lopp fukki million yoo xamante ni ñoom ñàkk nañu ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo ca loru nag ña ngay sàkku ci nguur gi nag mu daal di leen di kon dimbali des na ci dellu wax nañ leen ko cérémonie officielle Kazu Rajab bi moo ko waral ñu taxaw fi kon ci xibaaru euh, digg bëccëg bi gërëm leen ci euh, teewlu bi rédaction bi incha allah dana dellu si 19h30 20h ci yeneen i xibaar ñu yendu jàmm fekk boobu niñ ko waxee danañu wutali tubaa fekk ji fa gaañ yi